kóolute sa diggante yàlla kenn kenn taratu ko léegi ndax mbiri lislaam yi moom ca gannaaw yi gannaaw lañ ko taaj kenn xeexalul lislaam te diggante nit ñi xorante bi mu mel ni tulleeg male di leen nit de mu ne ko am kóolute yoon dafa topp nit parce que nit ko dafa am kóolute moom ci boppam workat la maanaam président yaa ñu xor politiciens yaa ngi xor nit ñi seen biir ñi ngi xor danga gis ku bëgg nit sax ndax yaakaar ne ndax ne moom da bëgg ndax am kóolute te moom ci boppam mu ngi xor jikko yi muy xeex moom mu ca ci lay xëy ci lay gont xam jamono dana toll foofu nit ñi di xorante di xorante bañ naan dëkk sàngam de wala famille sàngam de am na ku wóor ku fa nekk ba ñuy tagg ku yelloowu tagg parce que fa ñuy tànnee la ñu waru tànnee ña ñuy tànn la ñu waru tànn diw ak a dëgër ak a ñaw ak a am xel te daraay gëm yàlla nekkul ci xol maanaam la muy def yoonu lislaam nekkul ci léegi xosee faral jàngal ne dañoo war a moytu lii la ko yonentu jàngal nag moom waaye moom moo jàngale fii ne dañoo war a moytu ndax lii jëfam la mu ne wala xad ataa dikk na wala romb na alee ci man zamaanu jamono wama ubaali te du ma faale ayyukum kum ci yéen bàyyi atulaay jaayante am na jamono ju romb joo xam ne nii ama fekke woon naa jamono joo xam ne nii du ma faale ku may jëflante kan la ndax xam naa ne du ma wax mën naa jëflante ñëpp ndax la in kaana bu nekkee musliman di julit la yuruddannahu dana ko delloo alee ci man diinuhu diine jamono jooju su ma jëflante nii te julit la diineem mooy tax du xor diineem wala in bu nekkee nasaraan yeen di chrétien aw yahud yeen wala muy yahud la yaruddahu dana ko delloo alayhi ci man saa yi kilifa bu dee yahud nasaraan bu ñu amul diine yi seen kilifa ya amoon nañ kilifa bu kilifa waxee rek mu delloo la maanaam ñii dañoo amoon diine ñii amoon kilifa ñii seen diine moo tax duñu xor mooy jullit ñi yahud ak nasaraan yi amoon nañ kilifa seen kilifa yi ñoo tax duñu xor mu ne wa amal yow ma waaye tay fu maa kunti nekkuma u bàyyi di jaayanteeg minkum ci yéen illaa fulaana lu mooy diw woo fulaana ak diw tay nag diw ak diw rek laay jëfante bu joxoñ ay nit maanaam ñi ma wóor ne ñii ñu wóor lañ rek laay jëfante ñeneen ñi nag wallaahu alam kon boo nekkee si jamono ñàkk kóolute ñi ngay taf si sa bopp na nga xam ñan lañ bu lore de waaye bul jox paaka koo xam ne mën na la koo jam bul dénk koo xam ne lañ ko dénk bu ko sàgganee sa mbir yàqu bu ko dénk de del jëflanteeg ñi seen dëggu leer te ci jëf yi zaahir yi ci ngay attee ba xam ñii seen dëggu leer naam leerut baatin bi yàlla rek ko xam mais yow bu attee ci jëfi zaahir rek mucc nga moom la bàyyi waxoon benn waaye ne ko sa mbóot bu ko jox lu may ku ko yelloo te si zahir bi ngay xamee xelloo na ko wala xelloo ko baatin na yàlla ko xam mais ci nit mu wane si ngay xamee kii xelloo na lii wala xelloo ko si nga koy wóoloo wala nga ñàkk ko wóolu baatin na yàlla ko xam ñàkk wóolu gi nag du farfoos nga ne ku bon la de wala farfoos lam feeñee rek noonu la mel de déedéet yow loolu sa yoon nekkul si waaye daal mën nga ko moytu daal moytu moom dara nekkul si Xuzayfa nee na démb mën naa jëflante ku ne ndax bu dee jullit diineem tax na du bu dee yahut ak nasaraan kilifaam tax na lu ñu war waaye tey damay tànn ñu may jëflante diw ak diw diw diw loo xam na suñ jamono ñi tey waan Xuseyfa ibnu Yamaan jël nañ ci Xuseyfa doomu Yamaan di laa ne yàlla gërëm xaalam ne xadasanaa nett nañu rasulullah yonent yàlla salaam xadis seen ñaari waxtaan xad raaytu gis naa ahaduhuma benn bi mooy ñàkk kóolore waa naa man antasiru maa ngi xaar ala beneen bi xaddasana nettal nañu anel amaanata la kóolute nasara wàcc na fi jasri qulubi rijaali ci cosaanu xolu góor ñi su ma nasara topp mu wàcc alquran alquran fa amilu fa alimoo ñu xam min alquran ci alquran wa alimoo ñu xam min sunna ci su ma xaddasana topp yonentu nettal nañu an rafil amaanati ci yëkkati kóolute fa xaala mu ne yanaamu dana sàggan arajul góor an nawmata benn sàggan fa tuq ba duñu jël alamaanatu kóolute min xalbi ci xolam ñàkk kóolute nag bi ci gën a bon mooy si diggante sa borom تك سي ديغنتك مليفي فيظل ممجو اثرها جيختي كولتي بي دي مثل الوقت ملني اب جيخت بو نيو سوما ينام توك من راو النومات اك نراو فتخبر ني جيل انا مانات من قلبي تي فيظل ميندو اثرها جيختم مثل اثر المجلي كم جيخت فوت فوت كجمل من قلب وخمن دحرتو برم غوكو فلا رجلك ستانك فنفته مو فوت وتراو من بتر مو اجي جوك في شبير شيون دارا فما قسم مجل مم حزيفة حساتا بين خير فدح رجو مبرن كو فلا رجل يجي تنكم فيسبو ممجل الناس نني يتتابون دي توبرانتي فلا يكاد دقو أحد كان يؤدي دي جوخي على ما تقولك حتى يقال بدن يوخسن إن في بني فلان نك نكنا تي دومي ديو رجل نكو أمين نكور حتى يقال بني وحل رجل يلقو نما أجلده أكدقر ما أظرفه أكتد ما أقله أكامقل yonent ne maa fi qalbi te nekkul ci xolam misqaalu xabbatin lu toll nii benn pepp min xardalin ci xardal mi imaan ci gëm yàlla ndax jamono yàqu rek ñu koy tagg xam nga bu naari góor yi demee mbaam yi lañ mën a tagg walaay naari góor yi nekkatuñ fi wala jublootuñ leen wala xad ata dikk romb na alee ci man zamaanu jamono joo xam ne bu ma du ma faale ayukum kum ci yéen bàyyaatu laay jëf jaayanteeg maanaam laay jëflanteeg la in kaana bu nekkee musliman di julit la yu dannahu dana ko delloo alayhi ci man diinuhu diineem wala in kaana bu nekkee nasraaniyan di chrétien aw yahudiyan wala yahud la yu dannahu dana ko delloo alayhi ci man saa yi kilifaam wa amal yawma waaye tey fa maa kuntu nekkuma ubaayu di jëflanteeg minkum ci yéen illaa fulaanan wa fulaanan lu mooy diw ak diw muttafaqun alayhi bi mu dëppoo la xawla waxam jazru bi fata jiimi ci fata jiim gi wa iskaari zaali ak sukkoon saal zaal gi almuajimatu guñ tomb ga mu aslu sëy moo ci saanu dara wala waxtu bi taay si taagi almusanaatu buñ ñaareel min fokk ci kaw al asru dégg mooy jeexit al bu néew wala majlu bi fati jiimi ci fata jiim gi weskaanu bi fati miimi ci ak sukkoon jiim moom tanaqutul mooy ak tomb fi yedi ci loxo bi wa naxwa ak yu mel noonu min asrin amalin ci jeexitu liggéey waxee ak loolu mooy lu fut daal wa xawla waxam mun batara mooy murtafeen aji jug xawla saa yi mooy alwaali kilifa xale moom xadis bi ñu jàngoon démb yaakaar naa wajatu mu ne xaala xaana la ñemoon ba fii waaye te na beneen nettali mu ne wayn saama di la woor na wa salla mu julli wa zaama woote andoo ne moom musi mu julli la maanaam nit daal manda li xadis bi daf lay jàngal ni si zawahir ngay yii rek la nit ki wax fen dig la lam la dig defu nga wóolu ko mu wurij la bu la waxee ne man julit laa maa ngi nii di julli di woor xamal ne moytu ko ni ñu moytu naafiq rek man da na ci moom la kon nit bu wanee dëng même bu wanee ne melul noonu yow moytul rek moytu moom dana nekku si rek comme que daa affaire am leerul moytu moytu bu ko nag jàppee ku bon waaye moytu ko parce que affaire am ba baa ngi gisee lu la leer mais bul jàpp kenn sa xol ku bon mais xamal nañ ñee dugal si biir boo bëggee mucc waane xuseyfa jël nañ ci xuseyfa ak abu xurayra radiyallahu anhu may na yàlla gërëm na ñoom ñaar xaalaa ñu wax fii ñu ngi wax ci hadisu shafaatu ram ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam qaala wax na rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ne yejmaw dana dajale allah yàlla tabaraka barni wa taala kawe na annaas nit ñi fa yaqumu mu taxaw al muminuuna jullit ñi xataa tusdafu bañ jegee lahum ñee leen aljanatu aljana aljana dafay jege lool ñu bëgg caa dugg nag te mënuñoo dugg fa yaatuna ñu dikkee aadama aadama salawaatullaahi xewlu yàlla ala yaan lekk si moom fa yaqulu ñu ne ko yaa abana yow suñu baay istaftix sàkk wala ubbil la naa ñeel ñu aljana te aljana ñaanal yàlla muy ubbil ñu aljana lii mooy tawasul du ma si guddal nag dégg nga ndax yen débat yi sax da ngeen def ko gis yàlla rek ko mën ubbi moo ci mën a dugal nit waaye ñun bu yemal xiyaamate ci aadama la ñuy dem lu yàlla gërëm ci àdduna nag moom rek la gërëm ci àllaaxira bokkaale du dagan ci àllaaxira xaram ci <laughs> moo tax ku jaaru ci nitu yàlla yi ci àdduna boo àllaaxiraa nga jaar fa rek istaftix sàkk wala ubbil lanaa ñee ñu aljana te aljana ñaanal ñu yàlla mu ubbil ñu aljana fa yaqulu aadama ne wala axrajakum ndax génn na leen min aljanati ci aljana illaa xatiatu abikum lu mooy njumteg seen baay man mii di seen baay maa juumoon ba ngeen génn aljana kon nag mënuma ci dara lastu nekkuma bi saaxibi zalika di borom maqaama boobu maanaam may googu mooy ñaan yàlla pour yàlla ubbi aljana du may borom kon noog lu la yàlla man a may loolu moomu neen moomu ma ko gis nga aadama lu mu kawe kawe la xam ne bokkul ci mayam daf ne lastu bi loolu moomu moo ko de loolu wàññi na aadama dara waaye yàlla yëkkati rek tax nga ne lu ne yow nga ne yow yàlla nga ko yàggee rek nga suufee xool mu yebal leen ci moromu yonantoom fiiru defu dara ne izhabu dem leen ilaa ibni sama doom ibrahima ibrahima xalilullahi xaritu yàlla ba kooku de mën naa mu man si dara yaa ngi dégg ndax dafa wàññi si garaatu adama dara lii la olof di wax nangul sa waaye mbaaxam wàññi sa mbaax dara waaye loo moomut bu ko askane sa bopp doy loo lee yàlla may qaala mu ne fayaatu na ñu dikkee ibrahim fa yaqul moo Ibrahima ne lastu nekkuma bi saaxibi zalika di borom maqaama boobu de innama kuntu nekk nekk naa xalilan di xarit mi waraa waraa ca gannaaw yi gannaaw man xaritu yàlla waaye ca gannaaw yi gannaaw am na ay maqaama yu nekk sama kalam yoo xam ne jegewuma ko moomuma loolu nangu na cëram yaamadu dem leen nag jublu leen ilaa Moussa ci Moussa allazi bi nga xam ne kallamu wax naa ak moom allah yàlla takliman ak wax dem leen ci Moussa mi nga xam ne yàlla wax naa moom fayaatu na ñu dikkee Moussa Moussa moom mi lu muy wax nekk fi ne yàlla wax naa man kon man naa jéem a song maqaam mu ne déedéet fa yaqul mu ne lastu nekkuma bi saaxibi zalik di borom maqaamu boobu de isa bu dem leen ilaa insa ci insa kalimatillahi baatab yàlla wa ruuxi te mooy roxam dem leen ci kooku mën naa mu man si daan wax yàlla tànn na ko fa yaqul mu wax insa insa lastu nekkuma bi saaxibi zalik di borom maqaamu boobu ñu dikkal borom nag moo tax mbir bu dee sa mbir la bu ko bañ waaye bu ko def ngir wane sa bopp def ko ngir sant yàlla jariñ nit ñi ci li la yàlla jox loolu dara nekku si fa yaatuloo ñu dikkal muhammadan muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy borom may ga fa yaqoo mu jóg lii wane na yonentu du kenn ba mu jógee fa yuusoon ñu may ndigal loo ñeen kon yonentu sax dafa ñaan ndigal da nga dégg am loo xam ne yelloo nga ko waaye xaaral ba ndigal ñëw yelloo nga daawa ilallaay xaaral ba am ci ndigal te booy laaj yàlla ndigal mu bëgg nga liggéey rek dana la jox signe yooyu ne liggéeyal yow lii sa yëf la foo junj am moo tax bul gaaw a yenn yenn maqaama yi tàmmoo ci ndigal ndigal li nag léeg-léegi say nit rek nga koy jëlee imam Maalik wax balaa jàngale ay sëriñam dañ ko mérito nga lii mu gis ne nit ñi nangul nañ ko lii mu door koo def waaye tëbb fépp rek dafay jàngale de bañ a ñàkk barke tax yenn yi balaa def xoolal ñi nga jaar ñi la tàggat buñ ne defal lii rek mérito ko rek wala ñu jëflante yow li wane nangul nañ la ci li nga def rek defal loolu mooy mbir mi tëb tëb sa bopp ne da ngay def sa affaire ne da joxe ci xam-xam te yow amoo ci ndigal mën naa bañ a am barke muqaddam la xaaral ba ijaazal la waaye bul tëb tëb rek fipp ne man am naa xam-xam bi xam naa tariqa bi gaa yi rawuñ ma kon nag man muqaddam laa mbi demal sa bopp alkaani rek nga ci jël hmm. bu dee yonentu mooy xelloo ma xaama ramm te ba mu jógee dafa jug di xaar ndigal ñu may ko ndigal mu door a ramm ah ngeen war a xam ne kon ndigal am na solo ci lu ne ci lu ne lu baax looy def ci lislaam xaaral am ci ndigal léeg-léegi ndigal li mën naa jógee ci péeb yàlla ba mu dikkal la ko ci gént wala mu wax ak yow ci ay junj léegi-léegi ndigal li ñëw ci say kilifa may la ci ndigal ñi jiitu ci mbir mi joxeñ la ñépp ne yow la yow la yow la yow la yow la yow la yow la yow la la waxee yàlla la defal moo tax gars yi nee nañ comme doom du ne mën a waaye ji dañ nga ko yow mu da bañ ko daan mën a du moom kim doon ñëpp koy joxañ ne ko yow ndax nit ñi xam ne li moom su ngeen amee ndigal rek ngeen gis barke ci li ngeen def ngeen gis ci ndimbali yàlla yàlla bu bëgg liggéey jaam daf koy yombalal asbaabu najaa yoon yi muy jaar bu mucc dafay yomb ci moom waaye kum narul liggéeyal du mën a mucc yàlla yàlla may ñu mën a mucc kon Muhammad dafa jug yàlla may ko ndigal mu ràmm mu ñaan yàlla yàlla jéggal nit ñi waaye xaw xol ak bis bi nga xamee ne maanaam mbir yi xew na yàlla séparé na xéeféer jullit ñaa ngi jaar siraat nag xam nga jullit ñi ñooy jéggi siraat siraat yi fi jullit la dana am jullit ñu wadd bu ñuy jéggi siraat ñaar la yàlla indi wa torsalu ñu yónni alamaanatu kóoliti ne ko taxawal fii wa raximu ak mbokk ñu ne ko taxawal fële ñaar yi ñooy séq siraat ku rafetul ci ñaar yi doo jéggi ku amutoon kóolite boo ñëwee ba ci siraat kóolite xëcc la nga daanu ku doon ñaawal say mbokk boo ñëwee ba ci siraat mbokk gi ne la doo dem parce que yow rafetuloo njëmi ci man loolu tax lu raglu la ñaari lu jar a bàyyi xel la kóolute ak mbokk ak mbokk mbokk nag sàmm ko lu dañ lay defal lu rafet rek nga defal leen lu rafet loolu ñëpp ko mën mais sàmm mbokk mooy lan mbooy fa mbokk mbokk gu ñegas ga gu dëng ga nga góorgóorlu yow ba rafetal ci même buñ la ko delloo loolu mooy sàmm mbokk maanaam bu ñegas ba bu dëng ba mbokk ga dem bay dagg yow nga bañ koo dagg loolu dafa am mbokk de moo tax yonent bi laysa al waasilu bil mukaafi wa innama al waasilu alladi kuy joxe du mooy kuy jokk mbokk kuy jokk xam ne bu mbokk ci mbokk moom da koy defar moom dagg la nga jokk leen ñu xañ la nga jox leen ñu lor la nga jëriñ leen ci anam goo xam nii nag doo ci yàq loo xam ne ñëpp ko bokk loolu mooy léegi nag kóolute day taxaw ci seraat mbokk taxaw ñee leen kaa leen yéen ñaar ñii ku rafetulu jëm ci yéen bu mu jàll fa yaqumaani ñu taxaw ñoom ñaar jën bay siraat ci wàllu siraat mel ni garde koor yi yaminan ci ndeyjooru siraat wa shimaalan ak càmmooñ di garde léegi nag nit ñi war a jàll su keroogee rek ñu xam kanay kan yàlla yàlla may mucc su keroogee ci lañu xam ñu doon sàmm kóol ji su keroogee ci lañu xam ñu doon sàmm mbokk gi ndax kenn du romb fii te fekk rafetaloo ñaar yi ak leneen loo mën a rafetal ñaar yi boo ko doo jàll fa yamuru mu ron aw mu romb awalakum ñu ci kal melax mu ne ñu buy ñëw dañu mel ni melax ñëw rek jàll si ram mhm. mooy tànneef yàlla yi kultu ne bi ab yi maa ngi génn sama bàyyi wa ummi ak sama yaay mu dafa laa yonantu ne ko ay seen ban mbir kamaril barqi moo mel ni romboog melax lan moo gaawee noonu xaaral mu ne alam taraw ko naa gisu leen kay fa yëmbru nan lay moom melax weer joo muy dellu si fi tar fataani si xipp xifa xipp melax bi dem na dëkk maanaam gars yi balaa ngaa xool rek gis na ñoo romb nañ si rajo yi ñooy tànnee fi yàlla yi kuy yi ponkal yi ngand yi parce que ñoom takkuñ dara lu leen téye waaw ñeneen nit ñaa taq waa ñoom taqoon nit ñaa taq ci ñoom waa ñoom taquñ ci kenn parce que ñoom loruñ kenn si seen làmmiñ loruñ kenn seen jëf su ma kamaree xaayi réer yi topp comme romb am na ñoo xam ne bu ñuy jaar dañu mel ni ngelaw ngelaw melax gën a gaaw ngelaw gaaw na su ma kamaree comme romb ak picc am ñoo xam ne bu ñuy jaar dañu mel ni picc xam nga picc it gaaw na waaye ngelaw ko gën a gaaw li mooy wane nit ñi ma maqaama wa shadd rijaal yi am ñoo xam ne dañuy mel ni daw ak ay góor tajri dana daw bii ñoom amaalum seen jëf yi am ñoo xam ne bu ñuy daw bu ñu romb si dañu mel ni góor gu gaaw guy daw koo xam nga ne picc ko gën a gaaw waaye moom it gaaw na wa nabiyukum seen yonantu bi nag kaay mun ma nga tax taxawala siraat siraat di ñaan yaqulu mu naa rabbi yow sama borom sallim mu cëral sama xeet sallim mu cëral sama xeet yonantu nga taxaw si siraat ndeysaan yërëm nit ñi lool di jàkkaarloog ñoom di xool nañu rombe yaa rabbi sallim sallim lay ñaan yaa rabbi sallim sallim yàlla musal leen musal leen xataa temps ji sax ba mu lottu amaalul ibaada jëfi jaam yi maanaam ñu baax ñëpp jàll nañ li ci des nag mooy ñi nga xam ne seen jëf yi amul doole jëfuñ lu baax lu bëri ñooñu dañuy néew doole bu ñuy rek jéggi si raat waaye danañ jàll daal xataa yi jiw ba mu dikk arajulu góor laa at atnul asayra dox illaa zaxman lu may direeku am na koo xam ne dafay toog di jéggi siraat dana jàll de waaye balaa moo jàll xaw a dee day diréb mun la yéexil am ñoo xam ne dañuy daanu wa fi xaafatay siraat nekk na si ñaari wàllu siraat kalaa lii bu ay lonk ay weñ yu lonk mu àllaqatu yuñ takk sa safara maamuratu yuñ digal bi ak si man si jël ki nga xam ne umiral digal nañ ko bii ci moom am na weñ yoo xam ne ñoom am nañ digal dañ naa leen diw bu ñëwee rek lonk leen ko sànni safara weñ yooyu diw la ñuy xaar xam naa diw moom du mën a daw bu baax day raam waaye buy diw di ñëw rek weñ yi lonk yóbbu siraat wala weñ yi lonk xusi ko bàyyi ko mu jàll xusi gi ne li ko mooy bàkkaar yu ndaw yi gis nañ ne méritoon te nag ah, na weñ yi ko mu metti lool ci moom waaye yooyu mooy far bakkaar mu ne fa am na mbooloo moo xam ne max duusuñ dañ leen xusi waaye naajin danañ mucc si siraat de wa mu kar desuñ ak kuñ daane fi naari safara am koo xam ni dañ koy tegale si safara yaa ngi dégg kon nii lañuy ñuy jéggee siraat ñii mel ni melax ñii gaaw bu mel ni ngelaw ñii gaaw bu mel ni picc ñii mel ni góor guy daw ñii di raam ñii ñu xusi leen weñ ñu xusi leen bala ñu jàll ñii weñ ñu xëcc leen daana leen si safara yonentoo ngay taxaw naan sallim sallim waaye sallim sallim googu ñu baax ñi rek ñoo cay mucc umu kardasun ak kuñ daane fi naari safara wallazi maa ngi gën ci nga xam nafsu abi xureerata bakkanu abu xureerata bee dii mu ci loxom inna qaxara jahannama naka xóot xóotu jahannama la sabuuna juróom-ñaar fukk la xarifan ci ay ceebét juróom-ñaar fukki at booy daanu ci jahannama balaa nga egg ci xurxur ba distance bi dana mel ni loo xam nit mën na faa dund juróom-ñaar fukki at noonu la xóote tey buñ ni nit ci jahannama mu dara daanu ci xurxur ba fom yi commencé daanu ba fa muy heggee yow boo si doon dund juróom-ñaar fukki at lay doon xam nga loolu yàgg na imagine boo sànni nit ci kaw terrasse bi une mille mu wàcc ci suuf léegi nag sànni ñu sànni la ngay naaw ngay wàcc di wàcc di wàcc te juróom-ñaar nga war a am ci yoon bi pour door a daal suuf nga xam ne boo doon bébé balaa ngay xegg màggat nga bu doon yaa ngi màgg loolu mooy ne loolu xóot na hmm? luñ sànni day gaaw a wàcc mais juróom-ñaar fukki dañ ko am si yoon balaa may egg ci xóot-xóotu jahannam foofu lañ koy sànni yàlla lañ sànni musal siraat gi jahannama gi ay jullit ñoo fay dugg moo tax am na borom xam-xam yi ne jahannama dana gént ndax jullit duñ ko lakkee liñ ko war a lakkee dañ koy génn bis dana jot dana gént siraati yu baax ñi ñoo fay jéggi jullit ñi waaye ñuy féeri moom berne leen bu yàgg sànni safara jullit ñi ñoo nekk ci kaw siraat jullit ñi sàggan ñi ñoom la xus yi dagg leen seen yaram yi daggatoo loolu mooy faar seen bàkkaar ñu romb mucc ñeneen ñi nag lonk gi daf leen lonk rek sànni safara yàlla si yàlla musal rawaa soona ko muslim kon yomal xiyaamat nii lay demee lii nag shaahid bi mooy kóolute lu jar a sàmm la waaw awfu bil ahdi inna al ahda kaana masulan li ngeen fasante kóllëre rek nit ñi na ngeen ko matal ndax bis dana ñëw yàlla dana leen ko laaj waaye it nga déggee si ne mbokk lu jar a ndax ñaar ñii ëllëg ñuy séq siraat mbokk ak kóolute bu ci ñaaw borom du jàll wala jàll ga dana métti xaw loo waxam waraa waraa xaw moom bi fati ca fataat fii maag ñoom ñaar waxiil am ñu ne bi damm ci damm la bi laa tanwin ci dul tanwin waraa u waraa u am nañu wax loolu wa maanaa wa maanaa bi mooy lastu nekk moom bi tilka dar bi tilka daraja ci boobu la daraja arafin bu yëkkatu waaye moom kalimatun baar la tuskuru dañ ko tudd ala sabili tawaadu ci yoonu suufee sa bopp waxat basata basatu tàllal naa maanaa maanaa ba fi sari say muslim sara say muslim mais man su ma leen su ma leen si doon wax dama naan Ibrahima alayhi salaam dama bëgg wax ne jëmm yàlla ja moom heggut fa gannaaw jëmm yàlla ji maqaama yonantu ñëw na xeggul fa ci gannaaw yonantu lay tëbboo ñaari maqaama dox nañ digganteem ak téeg muy xaqatu muhammadiya mooy tëbb yonantu yëpp xaqatu muhammadiya moom rek moo mën a amit ci ahadiyatu ko moom direct ñaari maqaama yooyu yëpp dox nañ digganteem ak moom kon moom ma ngi ca gannaaw yonantu bi yonantu di ko neexal kon tey du moom mooy ñaan yonantu la ñaan ngi dégg dafa am yàlla dafa am am kiiraayam mooy leer gi nga xam ne ni lu yàlla di joxe ci moom lay jaar wàcc ci mbindeef yi kiiraay gi nag mooy yonent bi jëmm yàlla ji mooy yàlla yonent yëpp jegewuñ ma xam yonent bi yonent moo leen nàndal la ñu naan moo tax mu tudd ñaari waraa waraa gu njëkk gi mooy xaqatu muhammadiya mu ci kanamam beneen waraa mooy xadratu zaat mu ngi ci kanamam kon moom du mooy ki gën a kawe nañ bàyyi yonent nag sallallahu alayhi wasallam kenn farewul kanam moom moom yàlla rek ko faree kanam te yàlla te lii mindee fa ko moom moo tax ñu bàyyi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala alma rek xam hada in uridil islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh